Euh, tey ji waral waa Thiès Info ñëw di laaj loolu mooy koo xamante ni jigéen joo xamante ni bàyyi da koo xam doom ñëw bëgg koo takk noonu dañ ma waxee laaj bi mooy jigéen joo xamante ni bàyyi da koo xam maanaam nenni ni bàyyi bi da ko violé ci dul mu takk ko doom ja ñëw bëgg koo takk lu ci charia wax fofu nak tay ji tay bo demé ci sortu ni say euh ma ngi tim ben tafsir bo xamanteni kiko def da ci wax wax ju yaatu di kilifa gogo ñu naan Muhammad Assayid Atantawi fadilatu cheikh fadilatu imam fadilatu imam al akbar الدكتور محمد سيد الطنطاوي شيخ الأزهر nga xam te ne fépp fu nit di war a jaar ci xam-xam moom jaar na fa ba tey mu jiite al azhar léegi sax jiitu na yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko euh, waaye moom mooy seexul azhar te al azhar nag euh, boo foo ko déggee ci àdduna rek xam nañu barabu xam-xam la bokk ci université bi gën a mag ci àdduna bokk ñu ci boroom xam-xam yi gën a xóot ñi ñu bari ci àdduna ji fa lañ koy tànq ka jiite barab ba nag barab ka ko jiite woon moo bindi lii téere la boo xam ne quinze tomes la bii mooy xatu ñetteel bi maanaam pa xaajum ñetteel bi ñu ubbi ko fii ci xatum quatre-vingt-dix-neuf di tisaawa tisiin di juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent foofu yaa ngi fekk sunu borom subhanahu wa taala jox suratu nisaa yi bismillahi rahmaani rahim wala tankixu maa nakaxa aabaaukum min annisaai illa ma qad salaf innahu kaana faaxisatan wa maqtan wa saa sabila mooy eh, ñu ci buñ koy firi mooy bu leen ñu bari dañ koy firi ni bu leen takk wala tan ki xama nakaxa abaakum bu leen takk ñi seen bàyyi takkoon loolu lañ koy firee waaye eh, kilifa gi moom dafa wax ni li tax aay aay boo gis mu wàcc am na lu tax mu wàcc dafa am kenn koo xamante ni eh, ñi ko solo mooy ابن ابي الخاتم ابن ابي خاتم موكو سولو بسنده فا ام بن غور عن رجل من الانصار قال لما توفي ابو القيس وكان من صالح الانصار فخطب ابنه قيس امراته فقالت انما اعدك ولدا لي وأنت من صالح قومك ولكني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأمره فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا قيس توفي فقال خيرا ثم قالت إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه وإنما كنت أعده ولدا لي فماذا ترى فقال لها ارجعي إلى بيتك فنزلت بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قصر لي كلفة باخ لي إن كو تيريم ديلي كو تي ابن كثير لي كلفة ماك تي والو تفسير تي خاج بو جيك با تي خاتم 468 boo demee ci Ibnu Kasir dañ ko ci fekk moom indi war ko ci tiiram bii di tafsirul wasit di 15 tomes mu ni Ibnu Kasir nee na Seyxul Azhar Seex Tantawi nee na Ibnu Kasir ne ci tiiram boobu di tafsirul Quran ci xëtum bu njëkk bi ci ci xaaj bu njëkk bi mooy tom bu njëkk bi ci xëtum ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett mu ni dafa ki ko euh, ki solo lii mooy abi xaatam ci ceslaayam li ci téeréem boobu ñu am na jëm joo xam dafa ñëw ci ansaar la jëm ansaar bu ñu ko waxee mooy ñi dëkk Medine muhaajir moo ñu jóge Makka dem Medine bi bi bàyyim faatoo te baayam dafa bokk ci ñu baax ñi ñoo xam te ni ñoo ñoo ñoo tatagoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, ci ansoor yi euh, mu ni baayam faatoo nag mu bëgg a takk soxna su baayam soxna su baayam nag daal ni ko man dama laa jàppe doom ginnaaw dama laa jàppe xam naa ne yow yow mii sa baay ku baax la yow ku baax nga euh, ma daal di ñëw ma daal di ñëw ci yoon bi alayhi salaam di ko laaj ni li ko nag loo xam ci Eh, ñëw bi mu ko nuyoo ba pare ni ko yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamal ni Abaa Xays moom faatu na waaye doom ji Xays eh, eh, bi mu ko waxee Abaa Xays faatu na yonent bi ñaanal ko ñaanal ko mun ko nag waaye doom ji ku naan Xays dafa ma bëgg a takk dafa maa takk damaa takk wala damaa bëgg a takk mm-hmm. te moom bokk na ci wax dëgg yàlla ñu gën ci ñi ci ñi bàyyam jur mm-hmm. waaye nag man dama koo jàppee doom yont bi loo may ubbee ci loolu loo may xelal ci loolu ak lu ci sariya wax mun ko dellul ci sa kër te déglu ma bi aaya bi wàccee nag wala tankihu maa nakaxa abaakum mina nisa illa ma qad salaf bu ko defee yonent bi kon da koy da koy daal di aaye ndax bu jëkkoon daana am waaye nag bi aaya bi wàccee loolu kon amatul loolu waxi ibnu kasir la kilifa gi waxaat ne xurtu bi nee na Xurtubi bi bokk na ci borom xam-xam yi gën a bind lu bari euh, ci alxuraanul karim tafsir ba mu def ci alxuraanul karim 22 tomes la 22 waaw mu def ko ci alxuraanul karim mu ngi euh, mu wax ni moom Xurtubi kilifa gi ba tey moo ni Xurtubi nee na Xurtubi wax ni. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء من كان الناس يتزوجون امرأة, امرأة الأب برضاها بعد النزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها موخني أي ni ay عربي bi دان دان دان yi dañ دان dañ daan bu jëkkoon dañ mu neex la ak mu doon na àll ji ñu ñu doon na ko noonu ndax bu njëkkoon loolu xewoon ci ñoom waaye nag eh, bi islam ñëwee fekke loolu yàlla daal di wax ne yéen ñi gëm bu leen di doon nooti jigéen ñi bu leen di takk ci jigéen ñi wala di ànd ak ñoom ci ci loolu seen consentement ci loolu ñu ñu kontaan. wala wala ñu bég ci loola. donte seen jabari bàyyi la. kon ndekete lislaam wàcc na yonent bi ñëw na alxuraan di wàcc teewul ñu doon seen jabari bàyyi ci force. waaye bi nga xamante ni ay ñëw na daan di nag boo leen dee doonati seen jabar yi bàyyi yi na ngeen ànd ak seen consentement bu leen leen forcé sew sew la xurtu eh, bi wax loolu te kilifa gi mu leeral ko ci téeram bi ci xatum eh, eh, ñeenti kii ci xatum 99 page 99 mu leer bi mu waxee loolu mu ni kon wala tankixu maa nakaxa ne mina nisaa kon lu jëkk boobu muy wàcc kon am na bu ko jiitu mooy kon bu leen denc ci jigéen ñi ci force yaa ayyuha alladina amanu laa yaxillu lakum an tarisu nisaa karha kon boo leen dee takk jigéen ñi wala ngeen di ànd ak ñoom wala ngeen leen di jabaroo bu leen forcé ci doonte seen jabar yi bàyyi lañu mm-hmm. nañu ànd ak seen consentement nee bi ay bi wàccee ginnaaw booba حتى نزلت هذه الآية جناو جناو بابا نقول آية بيوات ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم هم دايمو جاك وات ولا ندون جين تفرس بيدار واتنا رواج ليادر بين بين واتين فصار حراما في الأحوال كلها لأن النكاح يقع على الجماع والتزوج mu daal di wax ne mu mujj nag daal di xaraam daal di nikaax nag baat boobu li mu wundu kilifa kay nettali ci téere bi li mu wundu mooy rapport bu ànd ak pas-pas maanaam rapport sexuel bu ànd ak pas-pas maanaam ànd ak sa soxna yoru biir bu ànd ak pas-pas mu ni fa in kaana al abbu tazawaja imraatan aw wataha bi gayri nikaaxin xurrimat ala ibnihi mu ne bu fekkente ni baay takk na soxna wala takku ko mu violé ko ànd ak moom ci dul mu takk ko araam na doom ji dégg nga tafsirul wasit lil quraanil karim لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سي طنطاوي شيخ الأزهر كتير مني فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطاها بغير نكاح حرمت على ابنه لأنه يعني بفكر تاني يعني باي تكنا soxna xaraam na doom ji bu fekkente ni bàyyi takk ko te aw feneen séeg moom ci lu ci ci lu takk moo xam violé moo xam la xaraam na doom ji faw mu continuer ci xëtum téeméer daal ni li tax mu wax loola aay bi dafa àgg ci ñu war a firi ñett yooyu ndax bu ñu firee ñetti yii nga xamante ni innahu kaana faaxisatan wa maqatan wa saa sabila kilifa googu di wax ni soo gisee ni ñu leeral eh, eh, faaxisa boobu eh, mooy lu ñaaw la lu bon la lu tilim la lu xel nanguwul la lu aada nanguwul la lu diine bañ la ci xatum téeméer xatum téeméer ak benn mu wax ni ci téeréem bii daal ni awulaha innahu faaxisa mu ni kon ku takk soxna baayam wala nga sëyeeg ku sa baay ba pare lu ñaaw la مني وثاني مقتا هو عبارة عن البعد مني لول لي ورال أنك بنيال دينك مني وثالثها وساء سبيلا مني يونو مانا ميتت بو بون مجد بنياو لا مني كون نغن خمني ان مراتب القبح الثلاثه نينا niveau niveau yu ñaaw waaw ci gën a ñaaw ñetti façon niveau la mu ni loo xamante ne xel ñaaw na ci xel ak loo xam ne ñaaw na ci charia ak loo xam ne ñaaw na ci aada kilifa gi bi mu waxee loolu ñu jëlaat beneen tafsir boo xamante ni kii ko def mooy ay sarut tafasir لكلام العلي الكبير أبي بكر الجزائري bi borom xam-xam bu ñëpp nangul xam-xamam ñun jàngal nañu borom téere bi ñu jàngale ci masjidun nabi ku dem Medine ci jamono yi ci gannaaw yàggul dara nga ko fa fekk tafsir bi ñaari xët la ñaari xaaj la xaaj bu jëkk bi nga yër deux cent cinquante Abibakrin Jazairi bi mu tolloo ci loolu ci leeral nii kilifa gi leeraloon wala tankihu maa nankaha abaakum mu wax ni Qurtubi nee na ci xatum deux cent cinquante et un deux cent cinquante deux cent cinquante et un mu daal ni Qurtubi di boroom xam-xam boobu nga xamante ni ci 250 ne nee na al ijmaacu ala anna arrajula ida wataa imraatan binikaaxin faasid innaha taxrumu ala abiihi wa ala ibnihi wa ala ajdaadihi wa axfaadihi mu ni pour bi daal di nii ci li wér ci li ñëpp ànd maanaam góor bu fekkente ni dafa am ak rapport jigéen moo xam ci nikaax fasit mooy lu dul euh, takk gu awul yoon voilà awul yoon loo xamante nekk nikaax fasit bi ñu koy wax mooy takk ta maanaam takk goo xamante ni Eh, amul wali amul ki mooy loo xamante ni ñoom ñaar rek ñoo ko wéet nee na bu bu defee loolu ba pare bu defee loolu ba pare day day xaraam day xaraam takk googu maanaam jigéen jooju mu àndal ba pare day xaraam baayam xaraam doomam xaraam ay maamam xaraam lu jóge ci moom kon képp ku am ak jigéen rapport ak noo mën a amee ak moom rapport nga takk ko nga bañ koo takk Qurtubi nee na Abu Bakr Jazairi ma ko wax page deux cent cinquante deux cent cinquante et un nee na ku am moom rapport ci takk goo xamante ni awul yoon day yow mi am moom rapport xaram na sa baay xaram na sa doom xaram na sa sët Abu Bakr Jazairi ma wax li ñaar euh, ñu ñëw ci ci kilifa gii nga xamante ni mooy Mouhamed Saadi al ahkaamu nasab fi fiq al islaami di borom xam-xam bu boo xamante ni yëpp nangu nañ ko xam-xamam bi biñ ko laajee ni ko loo xam ci an nikaaxu boobu mooy lan mooy li la ca kilifa yu mag yi xam te bindit mu daal wax ni moom Mouhamed Saadi ci téere ahkaamu nasab page quarante ba quarante et un quarante deux quarante trois mu leeral ko ci ba quarante quatre jàpp cinquante mu leeral ci daa di wax ni qaala qaala wa qaala al azhari al aslu fi nikaaxi fi kalaami al arab al watu daa di ni cosaanal nikaax bi ñu wax ci kalaama arab cosaan la mooy rapport kon yàlla bi ne wala tankixu kon bu leen am ak rapport ñu seen bàyyi amal rapport ndax al nikaaxu al aslu fi nikaaxi ci loolu arabiya mooy rapport sexuel mooy nikaax loolu arabi dafa xóot mu ne waxuma ko man Mouhamed Saadi al Azhari moo ko wax di ci ndax ci loolu arabiya juróom juróomi marja moo ci am juróomi delluwaay ñoo xamante ni mboolem université yi gën a mag ak ñi def ñi ko def troisième cycle waaw gës gëstu ci bind ci lu bari. juróomi delluwaay yi am lisaanul arab ci la sukkandiku mooy dictionnaire bi gën a mag nga xam ne quinze tomes la ibnu ma ibnu def ko ci yi ma sukkandiku ba def ko nga xamante ni mooy dictionnaire bi gën a complet ci loola arabia te yàlla dafa ne quraanan arabiyan alxuraan da ko wàcc muy arab kon di dictionnaire bi ci gën a fort kon mooy cëslaay li gën a wér dictionnaire boobu nag koo def mooy Ibnu Mandour fi mu sukkandiku mooy ci juróomi sukkandiku waaye la sukkandiku bu njëkk ba mooy tahzib tahzibul lua li abil mansour maanaam téere bi ñu naan tahzibul lua li abil mansour

الحواسي لابن البري موي الحواسي نجرو ملب النهاية في العريب الحديث الحديث والأثر موي جرومي تيري ييغا خامتيني تي والو لانغ نيو تي راو تي ادنا موم مو داجال كو بن تودو كو لسان العرب boo demee ci téere boobu dafa ni al aslu fi al aslu fi nikaax yi al watu al nikaax boo ko déggee arab di ko wax mooy rapport mooy rapport kon foofu mu leer la kon mooy rapport waaw ndax kon ni suñu borom subhanahu wa taala di waxee nag duñ ci duñ ci duñ ci gëstu ndax ginnaaw al aslu fi nikaaxi mooy watu maanaam mooy rapport am na ndax loolu arab yi dafa am ci ay ay ay kiyam waxinam li naan tudde al wadoo maanaam baat dana firee fii nii firee fee neneen waaye du yàq ci cosaan la dara kon dañ koy àbb yóbbu ko feneen waaye cosaan la lii la kon foo déggeeti nekk ah cosaan la mooy rapport moo tax kilifa gu baax gi di seyxul azhar daal ni daal boo déggee ak nikaaxu mooy rapport bu ànd ak pas-pas léegi ñu ñëw ci azhar yi mu wax ni ci borom xam-xam bu mag boobu ci wàllu littéraire ak wàllu grammaire waaw mu wax ni sunu borom dafa ni azzaani laa yankaxu illa zaaniyatan aw mushrikatan wa zaaniyatu laa yankaxuha illa zaanin aw mushrikun aaya boobu sunu borom subhanahu wa taala di wax ni maanaam ñu bari dañ koy firee ni maanaam ab njaalookat bu mu takk ku dul am njaalookat wala ku bokkaale jàll yàlla maanaam ku jaamu xërëm ñu noonu lañ koy firee azhar yi ni firin wa du noonu firin bi mooy azani laa yankihu illaa zaaniyatan aw mushrikatan maanaam ab njaalookat kenn wërta njaaloog moom ku dul ab njaalookat ni moom walla kuy jaamu xërëm weddi yàlla du takk kon kenn wut sa jàll ko eh, kon foofu tamit eh, mel ni sunu borom dafa waxaat eh, ci téere bi ci xëtum 41 ci ahkaamu nasab fi fiqil islaam yi mu wax ni bi borom mu waxee ni wankixu ayyaama minkum maanaam takk leen foofa baat bi takk lay firi wankixu mooy takk leen ñu baax ñi te jub ci ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi nañ leen maye kon foofa la muy firi mooy takk kon la foofu lay firi loolu eh, fii tamit sunu borom subhanahu wa ne yaa ayyuha alladina amanu ida nakaxtum almuminat foofu tamit du eh, li muy firi foofu eh, ci ci mu fassir yi ak ni ñu ni foofa ci loolu foofu li muy firi mooy maanaam takk leen ba pare doo ko ànd ak ñoom kon li ngay li ngay ciy diggi mooy al aslu fi nikaaxi daal mooy al wat mooy e, mooy rapport kon li Seexul Azhar wax day wax ju xel nangu ni ku sa bàyyi sëyal ba pare ama am moom rapport moo xam viol moo xam bu mu mën doon te takk ko xel mu sel nanguwu diine ju sell nanguwu ko aada nanguwu mu wax ko ci tirim bi waxuma ko nag ibrahima waxu ko ku ñew man na la jox téere yi nga xol ma orienté la boo amul nga ñew ci man ma leral la ko waaw léegi la borom xam-xam yi wax ni waye nak daqantuwut ak ndax nga mazahibi dafa bari ndax euh, da ngay gis kii gisee ne kii gisee ne le mm-hmm. ku nekk dañuy respecté ay gisinam mm-hmm. waaye xam-xam ay niveau la waaye mm-hmm. niveau la surtout jurisprudence xuus ci aveuglement bu wóorul foog nga am ay termes référence yu clair euh, te bëri na ci ñoo loo xamante ni ñoo xamante ni ñu ngi suñu bokki daara yi xëy na euh, ñun tuuti lañu xam ci loolu rek waaye ñi ngi cëpp xam-xam ñi ngi fi euh, waaye ñii nga xamante ne ay kilifa lañ ci nangul dañ leen seen borom seen i xam-xam ak lisaanul arab dafa wax loolu teewul am na ñoo xam ne dañ koy firee ni takk xëy na mën na valable na ci ñoom waaye nikaax daal illa ma qad salaf boobu nag ne illa ma qad salaf mooy ña nga xamante ni fekkoon nañu def ko la jiitu loolu amatul léegi nag buñ ko defee Eh, boo demee ci eh, imaamu Tabari leeral na ko boo demee ci tafsirul wasit leeral na ko ni ña ko defoon bu njëkkoon dañ koy dañ ko war a firi ndax léegi bu xaraamee léegi xaram na léegi kenn amul droit def ko mhm. ña ko defoon nañ ci génnaat mhm. loolu la wax kon eh, xam-xam heure bu parce que sunu borom subhanahu wa day wax ne bu xaddiya amee ida jaahum amrun min al amni aw il xawfi azaau bi walaw rudduu ilaa rasuuli wa ilaa ulil amri minhum la'alimahu allaziina yastanbituunahu minhum bu bu bu question wàcce dem leen laaj ña ci spécialisé wu parce que yàlla dafa fonk spécialité spécialisation da ko fonk moo tax mu ne bu mbir amee ñii xëcc ñi naan ñii leen nan dal leen ci ña ci spécialisé wu te luñ leen ci wax ngeen jàpp ñii nag ñu ci ay borom xam-xam lañu waaw ah, man dafay nettali rek ñi ay borom xam léegi ci loolu dàqante wut ak lii kii nga xamante ni boroom xam-xam bu mag bii ñu tuddee ko ba demee ci xaasitu saw yi di tafsir bu mag di ñeenti xaaj ci ci bu njëkk bi ci xaaj bu jëkk bi moom bu ma àggee ci aaye bi maa nakaxa abaakum dafa ne al muraadu bi nikaaxi al fii limu mu li mu namm ci an nikaax mooy pas-pas kon dañ koy respecté waaw pas-pas waaw moom eh, boo dem xaasiya leeral kon si eh, gàttal bu ñu ko dee tënk mooy ñaari anam dafa am eh, boo demee ci téere yi ñuy miin ci réew mi moo xam risaale la moo xam say say xol yi فهم يو خمتين دف بري تيري يخم اي فاشكل لا فاشكل لا مختصر لنو تنك نك اك لنو تنك دفع يمين ارخوان فاتحة ارخوان بيمي تنك لا فان ويري تيمير تيمير سايدة فوق نيت ارخوان بيمي تنك لا ديتاي سو ديتاي دفع بخ زيريس بريزنس فا اجي ديتاي فاتحة ودمي تي مفسيري ودمي تي المباحث في علوم القرآن لمن نعي القرآن يعني أرخوان نيار لا mujmal ak mufassal alxuraan bu ñu tënk mooy faatixatul kitaab alxuraan bu ñu tënk la waaye mufassal bu ñu te bu ñu leeral ko ci téeméeri saar ak fukk ak ñett eh, ñii nag dañoo détaillé leeral xam ni daal boo demee ci ñi nga xam ñooy ñooy jëfandikoo loolu arab yi bu xóot te xam ko te eh, te ñëpp di dellu ci ñoom ñoo nañ ak nikaax mooy alwat u mooy rapport mm-hmm. kon yooyu ñu bàyyi ci xel xam ni daal euh, bu dee ci tafsirul wasit bi seexlu na ko abi bakarin jazayri seexlu na ko ahkaamun nasab seexloo na ko fuqaha yu bari seexlu na ko ñii bokk nañ ci malik ñii bokk ci mm, ci euh, mazahib yëpp ñii ci ay borom xam-xam yu beeru seexlu nañ ko waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah